asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo El Vision Média di leen baal àq leen baalu àq ci weeru koor bi ñu nekk tey nag boo leen ma gisee ni ma fël macha allah nekk yaay Fall fekk si fi nag koo xamante ni si kenn dootu ko présenté fii ci Pikine ci wàllu mode stylisme tailleur coupe et ñu naan ko mbay Faye Mbaye VIP création mu fekk si ko fii ci Pikine Talib bees muy amal chaque année benn xew-xew bu rëy événement bu rëy a rëy muy ndogg social bi nga xam ne mu ngi koy amal fii ci Talib bu bees ceeg jàmbaari Serigne Touba. tey nag mu fas yéene cee ànd ak waa El Vision ñuy wane li nga xamante ne Mbaye fay moom lay def fii ci Pikine chaque année weeru koor bu ñëwee ñuy wane ndogu social bi di wane tamit li nga xam ne ay cant la mu koy def damay daal di topp nag sama caméraman bu ñaawul bi saaliw mu wan ma ki nga xamante ne mooy mbay fay ñu sekk ak moom waxtaan mu wan ñu jàmbaari Serigne Touba ñu nag yéen ak waa El fii ki cant yi ba fajar bi fii ba tey ci Pikine tali bu bees fekk si fi Mbaye Faye ak jàmbaari Serigne Touba boo gisee macha allah

ñu nekk ay murit saadix nag mënoon nañu woote leneen mais Mbaye Faye moom Serigne Saliou rek ko ñor loo ko waxul Serigne njaboot Serigne Touba waxoo ko dara te ñun daa ñëw fekk si ñun waa koñ ñu bëgg loolu ba mu jeex ñun soo ubbee suñu xol sëñ Touba nga si fekk man sëñ Afia mooy sama wasila barki maam Serap Fall mais ndogu leen nag chaque année fi lañ koy joxee te day saawan baawaan wax amul waaw. kon yan kàddu ngay dénk Mbaye Faye Mbaye Faye bi nga xam ne mooy initiateur bi. waaw di ko dolli gërëm tam parce que grand frère la boo xam daa nekk si koñ bi mais xam nga dañoo boole si boppam daal mënoon na koo def moom kese mais dañu cee boole nañ ñëw xeexandoo dóorandoo mais dama koy ñaan rek mu continuer ko mu bañ a bàyyi loxoom mbay fi nga teg sa foofu la wax amul waaw. comme liñ naan bu peccum liir neexee nday jaajaab ca mbagg ya mbay fay nee ma awa ale ba ma wuy ko mu ne ma ndogg social bi bi mooy sama troisième édition te am sama yoo xam ne dañoo nekk ci koñ di ci jàpp ba affaire yi di yemb kenn mu ngi nii taxaw sëñ bi noo man maa ngi tudd Samba kase Samba kase man waaw man nag frère ci moom quoi Mbaye nag yàlla dogal muy suñu raq nekk suñu jarbaat nekk suñu lépp nekk nit ku baax ndax yàlla dafa dogal dañ xale bu loxoom setee mën na bokk ak ay magam mën na bokk ak ku ne li ma gën a neex ci moom mooy mu nangoo liggéey lool te lu mu liggéey benn instant ci ay waajuram la jëm cantam yi nag. bi mooy troisième fois bi dañ koy ñaanal yàlla bu déwénee ñun ñu yeewal ko nag ndax am nañ yéene bi te yàlla na ko yàlla mootal ci barkante bi sallallahu alayhi wa sallam quoi yéen tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ndax maanaam yéen a liggéey ci réew mi lu am importance yéen a tax benn ndaw toogatul di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen jàmm dafa leen salaam ci barke Seydina Mohamed. amin amin ñu daal di bokk lépp. Saliou danga may topp rek ma dem xool jigéen ñi fan lañ nekk naka la ñuy nekkee ci waañ bi ak naka la ñuy waajalee spécial ndogu bi nga xam ne moom la Mbaye Faye di amal fii ci tali bu bees chaque année troisième édition mu ànd ceeg El Vision Médias abadan abadan mu ngi noonu ba tey ah maa ngi ñi nga xamante fi nga xamante ni mooy waañ bi nga xam ne fi la ñuy defee ndogu yi macha allah waa waañ bi nekk nii ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo safonteeg mbay fay wóolanteeg moom bokk ci jàmbaari Serigne Touba yi nekk fii ci waañ bi ñoom ñoo rees ndogu yi kon damay daal di rek euh, jébbal leen kàddu gi soxna si nuy naa la. naa la noo tudd. Maguette Seck. Maguette Seck. nga mhm. bokk ci jàmbaari Serigne Touba yi. waaw waaw di liggéey Serigne Touba rek joxe ndogu yi ñu koy def chaque année ñu ngi nii ci waañ bi joxe ndogu bu guddee ñu fas yéene def cant bëggal sëñ bi daal waaye li ñuy wax ci murit yi daal kon kon daal loolu daal mooy nekk li nga xamante ni moo am macha allah waañ baa ngi nii ala daw mais ngeen di préparer ndogu yi euh, mooy yi laay laaj mooy dangeen da ko def cotisation am na ku nekk ci ginnaaw wala. waaw jàmbaaru Serigne Touba boo ko déggee ñun ñëpp rek lu ci waaye am rek da ngay dugal ñu def rek waaw. Mm-hmm. waaw ñu liggéey weer weeru jàmm ak salaam la ñu wax weeru social waaye weeru defalante ak ay weeru ngëneel ba tax na tey boo gisee góor ama naa lañ ko daan fekk si waañ bariwul waaye boo gisee tey sama xarit bi nga xamante ni macha allah boo gaa ma fekk ko fii ci waañ bi muy jàppale xale jigéen ñi ci préparation ndogu bi xarit nuy naa la maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax a baax soxna si ndogu social troisième édition ngeen ci ànd ak Mbaye Faye ak jàmbaari Serigne Touba waaw mu nekk loo xamante ni cant la vraiment depuis bi mooy troisième année bi ñu koy def di sant Serigne Bamba ndax xam na ni ñun ay murid lañ te Serigne Touba rek la ñu am kon bu nee cant mooy bernde waaw mooy jox nit ñu lekk jox nit ñu naan daf ko àddee Serigne Touba loolu rek mooy mooy mooy mooy cant voilà da ngeen di cant ay murid ngeen macha allah waaye li ngeen fi def yëpp dafa rëy parce que wax nga léegi berndeel te soo nee berndeel rek euh, maanaam lu bari génn na tey euh, lan ngeen ban message ngay lancé ñi nga xamante ni peut être ñu ngi lay seetaan ñuy ñëw di jàpp ci ndogu social bi. voilà message bi ñu ci bi ñu ci bi ñu nit ñi mooy ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que Sénégal benn dëkk la mais ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñuy jàppalante. socialement nañu dimbalante ñi amul nañuy dimbali ñi ñàkk ñi ñàkk di muñal ñi néew la buñ ko defee Sénégal dana nekk réew boo xam te ni dana jëm kanam et puis socialement murid yi ñoom dañuy dox ci social parce que boo gisee dépp koor foo romb rek yaa ngis gis yaa ngay sekk café ñoo ngay joxe ndogu loolu maanaam sëñ bi moo ko jàngale ci ñun mu dooree nag ca xalif ba ba léegi kon loolu ñun duñu wàcc yoon wi lii la ñu xam muy dimbalante joxe ndogu bernde sante serigne bi lor rek moñu fi déssé wa tay gis nga wa wañ bi mom dañu yëngoo nu né jambaari serigne Touba yi ki sama xarit bi mom néna dafa am lu muy duggal ben beuyit bo xamné machallah macha allah bëggoon mbay mok téléspectateur yi safo elvision Média. bismillah barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba. barakatul lazil ujud wal khidam khalwa jaba lawlana tumil khidam barakatul lazil wujud wal khidam khal wajaba lawlana tumil khidam subhana zil baqa wal mughanafa man khadali amnan bila mugharafa mulkul lazi khiyamu bi nafsi wajad lo la كل يدي خان ajab Alhamdulillah taala waxda kamalo xam di wal waxda jërëjëf borom tuwa la ilaha illallah lu fi doonul moom amul déedéet lu fi doonul amul déedéet yàlla mi du sunu borom la ba ma si xale yi nga xam ne ñoo nekk fee ci waañ bi res li nga xamante si moom mooy ndog yi ma ñëw nag fekk fii yoo xam ne yaay lañ macha allah ñoom tamit ñu jàppale Mbaye Faye nekkal ko fi nga xamante ni mooy bi di préparer reer yi pour accueillir gan yi nga xamante ni ñoo ci cant bi ñu nekk nag ma fekk fi nag ki nga xam ne suñu yaay di yaayu Mbaye Faye mama nuyu nañ la. maa ngi leen di fay sama do, ñuy sant yàlla rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant Serigne Touba bu baax di ñaan yalla yal na ci ko suñu borom yàlla doole fayal ci barke bu tedd bi ah cant gi nak mbay fay sama dom mo koy def ko ak nijaayam musa sen nijaayam xaritam leppam ñu and di sant Serigne Touba ma di len ñaanal yalla nak bis bi ñu sumbu te di def yal nañ dund ba ay nak ak i ci barke Serigne Touba Mbacke ndax Serigne Touba Mbacke moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am ah tubaarkàlla bernde yaa ngi nii ñuy defar lépp a ngi nii pour lu ñu terale gan ndax sëñ Saliou Mbacke daf noonu yoonu Serigne Touba euh, euh, kii la liggéeyal Serigne ak bernde kon bernde yaa ngi nii. tey tey tey tey lan nga yëg sa doom lan nga yëg sa xol sa doom am initiative am am yeneen ay mbooloo topp ko tey muy def li nga xamante ni tey parent bu ko gis wala ku ko dégg sa xol dina sedd ndax jeunes yi ñu ngi ci dëkk bi di def leneen lu leneen lu sul noonu moom Mbaye Faye mu ñëw ànd ak ay ñoñam ak ay xaritam ni jàmbaari Serigne Touba di def ndogu social loolu tey ban effet lay def ci yow. waa tubaarkàlla sama xol sedd ci guy nag. di ko ñaanal yàlla rek lu mu ci man ren bu ne yal na mën lu ko mm-hmm. ci barke Serigne Touba Mbacke ndax li ma la wax la rek da koo commencé ànd koog nijaayam xaritam léppam ñu ànd di sant ñuy jàmbaari Serigne Touba te ñun yoon wi dañoo amul lu dul Serigne Touba. ñun dañoo juddu fekk suñuy way jur ànd ak Serigne Touba suñuy doom it ñëw fekk ñu ànd ak Serigne Touba ñu ànd ak ñun di liggéey Serigne Touba. kon lii moom sant yàlla la sama xol sedd na ci guy ndax euh, mënoon naa juddu nekk ci beneen yoon. te kon ma ci mën dara ndax ay moromam a ngi ci kon lii mu dund di ko sumb dama ko ciy ñaanal yàlla yal na ko ci sama borom yàlla defal lu kawel njortam ci barke yonent bi loolu laa ko ñaanal am naa ci yéeg nag sama xol sedd na guy macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla. di lay jaajëfal yaay booy bu baax a baax di la wax bu ñu fàtte ci ñaan euh, ñu ngi fi ba tey ci waañ bi nag fi ñuy xam ne fi la ñuy préparé euh, reer bi nga xam ne moom la ñuy bernalee ñu ñëw ci cant bi. Tos Moussa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay di la fay tamit ci turu Mbaye Faye parce que vraiment affaire bi bi ñu ciy jublu man ak xale yi ñii ñëpp ñoo ci jub mais ku nanguwul jiitu doo nangul yàlla sama jarbaat la mais xale bu loxom setee mu mën a bokk ki mag bu nu jële lépp jiital ko teg ko ci kanam du question ko mënuñu ko ndax fii laa juddoo fii laa yaroo mais dadi nit ku nekk ak fa nga féete moo tax ñu jël ko jiital ko te lépp daal loo gis rek lépp mooma ndax yëf yi bu agsee ba fii ginnaaw yàlla ak xale yi ndax ñii nga gis nii ñëpp waaw yaay faal yi ñoom it ñëpp jàpp nañ ci bu baax a baax man daal damaa nekk seen mag rek nekk seen ginnaaw mais ñoom ñoo ne ci kanam ñoom luñ la wax ak luñ def rek noonu la et puis yéen kontaan nañ ci yéen bu baax ndax li Elvision mii bii mooy troisième année bi te ñuy ñaan yàlla balaa déwén sama xale yi taxawkat yàlla def leen ay milliardaire ba ci mbay fay mi yàlla defal ma ko milliardaire ñi ngi sant nag ndax lii mu ci jubloo lu ne rek ay cant la ndax xam nan lan la waaye dañ ni dañ ni yow yaa koy yow yaa yow yaa koy jàppale yow ya ci and ak mom and ak xalé yi moyens yi bo gisé tay fi xamni ni berde yi machallah yeena ngi waajal ndogu social bi ta lolu dulu tout kan mo nek sen ginnaw kuy def côté financière wala sen doole bop la ak ban appel nga bëgg lancer pour sen mbokk mouride ak kep kuy julit rek ñoo duggal ci loxom ndax par wéru koor ngeen koy def bon bu féké dama la wax dëgg te yalla tax loxo kenn demu ci ndax biñ koy commencer leer na mbay fay leer na xalé yi ni bon yàlla def na ni newuñu fi nag mais fii lan dëkk fii lan ne mais bi ñëwee di ko commencé maag ñii la woon kon bu demee ba toll fii rek am na nag ñoo xamante ni ay nitu mbay fay lan ku mel ni ñoom booga ay samba jaara ñi ak yeneen ñoo xamante ni bëggu ñoo feeñ ñi ngi def teraanga goo xamante ni di ko jaarale ci turu mbay fay mais biñ koy commencé vraiment suñuy moyenu bopp la mais am na ñoo xamante ni tey ji bon ak mbay fay moo ku mel ni ñoom boogaa tey ji am na ci loo xam te ne ko leen wax ndax foo dem am na ñu nangoo feeñ am ñu nangute feeñ mais yàlla def na de fi ñu toll nii suñuy may nu bopp la ñuy demee ak ay soppee mbay fa yoo xam te ñu ngi koy jàppale ñu bëggul ñu leen tudde pour l'instant चल चल जा से tell me, tell me that. Tell me, tell me that. Tell me, tell me that. المصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ إبراهيم لا إله إلا الله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 لا لا لا إله إلا لا فلا إله إلا لا لا إله إلا لا فلا إله إلا لا allah comme ni ma leen ko waxee woon rek du ñu bàyyi benn yoon ñu ngi ba tey fii ci Pikine ànd ak may bi création ci spécial ndogoom gannaaw bañ ko gungee ba mu def spécial ndogoom dañuy daal di ànd ak moom nag ci guddi gi ci cant gi spécial sargal Serigne Touba Saliou sama caméraman bu ñaawul bi da nga may daal di ànd ak man rek ñu dugg xool cant yi macha allah ak Mbaye Faye nan lay sargalee Serigne Touba tey fii ci Pikine tali bu bees topp koy fay cantam yi muy def chaque année ak spécial ndogu dafa wër àddina macha allah tey waa Pikine waa Pikine tey ñëpp a mobilisé ñëw jàppale seen doom boo leen gisee ki ma toogal kenn du ko présenté ci wàllum aar mi ci showbiz bi muy Mame Bassine doom nday njole mag sama nuy naa la. fay naa la lu bëree bëri sama xarit. ci loo nekk. yaa ngi am jàmm. waaw yëngu nga da nga koy fo nii nga ñëw tey fekk si Mbaye Faye macha allah muy sa lan ngay yëg bi nga ñëwee tey wuy si Mbaye Faye. waaw Mbaye Faye suñu góor suñu càmmeñ bu xewlee il faut ñëw jàppale ko comme ñu ngi ci weeru Ramadan dara koy dénk si ay kàddu li nga xam ni mu ngi koy amal chaque fii ci Pikine di ko ñaanal di ko taaliba Serigne Touba du ca kanam rek saa su ne soxna Mame Marème a ngi ni toog bu ñëw sa bàyyi mu ne Fall ca kaw ca kanam dëgg du neex ba tey du ma bàyyi benn yoon cant di dem di neex macha allah tubarkalla macha allah spécial sargal Serigne Touba soxna si nuyu naa maa fi noo tudd Wali Thiam Wali Thiam nga ñëw jàppale si Mbaye Faye waaw muy sama rakk baax bëgg sëñ bëgg sëñ Fallou Mbacké ñu koy ren yàlla yokk moom yokk ci bàgg sëñ Fallou xale bu baax la wax dëgg yàlla bëgg Serigne Touba ba noo gisee cant noo gisee cant yi cant yàlla gën a yokku neex na trop. Isaaxa Diop maire Pikines Isaaxa job. ñu fekk la fi nga xamante ni mooy événement Mbaye Faye bi troisième édition nga nekk maire de la commune de Pikines tey la moo waraloon sa teewaay fii waaw tey vraiment dañoo am mbégte tey fekkee waat bés bi nga xam ne ni sunu xarit sunu doomu nday mooy Mbaye Faye moo koy organisé donc ñu ñëw bokk moom bés bi nga xam ne at mu jot da koy def Mbaye Faye nag dafa bokk ci ndaw yi nga xam ne ndaw yi nga xam ne ay référence lañ ay modèle ci gox bi mu nekk ndaw mu am jom mu nangoo liggéey nekk bëgg lu baax xam ne ne yàlla moo boole démb vraiment mu nekk koo xam ne dañ koy encouragé looloo waral tey suñu déplacement ñu bokk ak moom bés bi mu nekk bés boo xam ne aussi jeunesse bi ngi nekk si yëpp dañu ñëw bokk moom li ko ko may nag mooy jikkoom li ko xam nga ni boo nekkee maire de la commune de Pikine Mbaye Faye nekk doomu Pikine bu xewle nga ñëw teewal ko jàppale ko kon lan ngay ñaax Mbaye Faye lan nga koy dolli waaw dama koy ñaax rek mu a ndax li mu am yombul tey nga am bés ñëpp ñëw la c'est parce que yow yaa ko wane ndaw boo xam ne jàmbaar la liggéeykat la ku am jom la ku yaru la ku tey la di ko wax na ko nag na gën a góorgóorlu fi teg tànkam foofu la bu mu ko teggi ñu ngi lay jaajëfal bu baax maa ngi leen di jaajëfal merci waaw wax waa El Vision waa El Vision di leen encouragé di wax ñu ngi liggéey bi gis nañ li di def yal na yàlla jàppal leen may leen ndam ci kanam vraiment kontaan nañu merci beaucoup macha allah sunu yaay joo xamante ne moom tamit daa ñëw teewal si Mbaye Faye ki sargal Serigne Touba yaay nuy naa la. maa la fay naa la. tur bi. Ami Ndiaye. nga ñëw ci cant yi. cant yi neex rek yàlla ci yàlla def def ci wér ak gudd fan yéen yàlla leen yàlla may gudd fan ak wér ci daraja yonante bi. looy dolli Mbaye Faye looy dolli sama doom ju baax la ju am yar ju am teggin ju baax ci yaayam lu la la may defal. man Amy Ndiaye lu ne la ma bay di defal ci kàttanu sunu wala maa ngi koy ñaanal wér ak far Aïcha ba tay ñu ngi fii ci cant yi spécial sargal Serigne Touba ànd ak Mbaye Faye damay daal dem xool beneen xale bu jigéen mu def ba mu baax ñëw jàppale si Mbaye Faye soxna naa la. fay naa la chérie noo tudd. Fatou Kara Kara. si jàmbaari Serigne Touba. loolu mhm. jàppale si Mbaye Faye. waa dëgg neexul suñu mag ju baax la. Mhm. mu xewle ñun defuñu nag mënul ñu def lu ñëw fekk si ko jàppale si. ñooñu loo koy ñaax ci bisam bi nga xam ne mu ngi koy def bi mooy troisième édition. liggéeyal sëñ Bamba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek am yàlla baax na yàlla baax na incha allah. Aïcha mu ngi noonu ba tey ñu nekk Pikine Tali bees nee naa la mbay VIP création tey ñi ko wuy si ñoo bari macha allah xarit àndandoo ñëpp a ñëw tey nekk ci ginnaaw mbay VIP création ma fekk fii nag ndaanaan boo xam ni macha allah kenn dootu ko présenté jamono ji ci Sénégal moom waaw maa ngi leen di fay bu baax El Vision Média. waraloon xam tey la moo nekk sa teewaay fi waaw maa ngi nuyu Sénégal yëpp euh, di nuyu képp koo xamante ne mu ngi ñuy suivre à travers El Vision Média euh, di nuyu vraiment mbokku Pikine yëpp ñi nga xamante ne moom laa fekk fii euh, di kontaan lool tamit ñëw ci bés bi di suma xarit nekk koo xamante ne daf ma bëgg ba mu jeex moom doomu ndeyam Boga Mbaye bokk nag ci li may def bëgg ma lool supporter moo tax ma ne nag bëgg yëg moo koy fay te ku la bëgg da koy bëgg ku la yëg da nga koy yëg loolu nag moo waral tey ma bàyyi lépp bàyyi tey lépp ñëw fii ci bés bi xam nga lu baax moom kenn du ko def di ci jële leneen lépp looy def mu nekk lu baax rek yàlla daf koy ful te boo seetee première édition bi ak deuxième édition bi ak troisième bi nga xam ne dafa wuute kon nag saa su ne yaa ngi gis avancement vraiment may ñaan ñëpp ñaanal ko mbokk Pikine ñaanal ko sëñ Touba mi nga xamante ne nag moom la wóolu Mbacke Balla ak sëñ Afia ah ak euh, njabootam gi nga xamante ne ñoo fi ñëw nii ndax ku ne xam ne suñu yaay mu ngi nii toog vraiment ma kontaan lool yal na ko yal nañ ko wallu yal nañ ko gën a jàppale mu gën barke ba affaire bi dem ba nekk lu yaatu bañ koy yóbbu ci stade yi incha allah. looy wax waa El di leen wax ne dama kontaan seen liggéey ndax vraiment dama leen di suivre bu baax ngeen di def lu mucc ayib. ca kaw ca kanam rek. baax. VIP création ngi nii doomu Pikine bi moom borom VIP création avant may commencé dama naan Mbaye Faye li ma sol kan moo ko ñaw. li nga sol VIP création ko ñaw. dëgg neexul ñu ngi ñu ngi lay fay bu baax awa. lan nga yëg tey lan nga yëg. xanaa kontaan ak mbégte contentement boo xamante ni am na commencement waaye amul fu mu ndax defe naa nga taxawal bés di sant Serigne Touba di sant Serigne Fallou Mbacke doomu Serigne Fallou Mbacke day placé wu ñëw ba ci biir toog kooku sa xol dina seet ndax Serigne Fallou nekku fi kooku moo fi nekk kon bu fi teewee suñu xol dina sedd guy suñu xol sedd na lool sedd ci Mame Marème Mbacke bu Serigne Fallou bu baax a baax. tey boo amee ñooy gërëm ñàkkul ñu la jàpp ndax lii yombul woote ñëpp wuy si la tey ñan ngay gërëm ci bis bi. maa ngi gërëm Moussa Ndiaye. waaw muy sama nijaay ànd ak ma ci bés bi na ma ci bu baax a baax a baax a baax ndax defe naa ne benn lam du yëngu moom mu jàpp ci bu baax mbooloo mi ñëpp koo fi gis jàppal ne jàpp na ci ma leen di gërëm ñoom ñëpp di gërëm ñi nga xamante ni nii mooy monsieur le maire bi ngi nees Isaaxa Diop moom it teew na di gërëm Yacine Lo muy sama jigéen moom it mu sonn ci bés bi lool tey ci bëccëg teraanga mu ne la fi indi ma koy sant di ko gërëm di gërëm Issa Gueye mii sama toog sama wet di gërëm ñëpp mën naa amul muy wax dul gërëm ñëpp barke Serigne Touba di gërëm sama jigéen bu nekk ba Gambie muy Khadija Khadija Diallo moom it muy ko baax jàpp ci bés bi lool ma koy gërëm bu baax a baax di gërëm sama yaay yi nga xamante lépp moom la. xam nga li nga fi yombul. waaw suñ nee action sociale. action sociale rawatina ci weeru koor nga séddale ndogu mbay fay loolu rëy na de. rëy na torop rëy na torop waaye lépp bu amee rek. jaamu yàlla yi ñoo ci japp comme ni la wax sank rek ben lam du yëngu xeyna ku ci nekk am na ñoo xam ne nga tok fañ tok seen dërëm di ci ñew kenn gisu leen yow ñoo ci def li ñu war a def yëpp ñom ñëpp ma ngi leen di gërëm di gërëm ñëpp te xam nga nak lepp lu def rek ngir jëmmi yalla Serigne Touba rek moko waral. ban message ngay lancer téléspectateur di la sétane Vision. di sétane Vision yëpp ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax naan ni sétane Vision ndax El Vision télé la boo xamante nii mu ngi jàppale jeunesse bi di jàppale ñëpp di def la tout ba àdduna bi yëpp Sénégal yëpp am visibilité ñu ngi leen di bu baax di leen sat di leen gërëm di la gërëm bu baax nag yooyu Awa Alain ku baax nga